di am mbégte contentement ci ànd ak yéen ci suñu émission yaru ak yare ci suñu numéro 19M di waxtaan woo xam ni euh, niñ ko baaxoo di defee saa di ko ànd ak suñu mbokk mu baax suñu mbokk daara suñu jawrin seen Maxtaar Kebe euh, mu Cheikh Saliou bu saa su ne ñuy ànd ak yéen di waxtaan waxtaan woo xam ni euh, jubluwaay bi rek mooy gaaral ay mbir waaye weccante ko tam ak mbokk yi nga xam ne ñuy Euh, saa su ne waaye nuyoo bi nag ñu ngi siy jiital bu baax suñu jëwlin jëwriñ Alaaji Sëriñ Seck euh, ak mboolem ñi nga xam tam ñu ngi yëngatu si kër gi di seet waa am nuyoo bu baax Cheikh Amadou euh, mi nga xam ne liggéey bi ci lépp si loxom la nekk di ñaan borom bi tabaaraka wa taala niñ ko tàmbalee si bismillaahi rahmaani rahiim borom bi may ñu mot la ko si alhamdulilah rabbil te lépp li si génn itam di nekk loo xam ne lu ñuy jariñoo la ndax loolu rek moom mooy moom mooy mooy jubluwaay bi. di siyaaru baax tam suñu mbokk mi nga xam ne toujours moom la ñuy àndal bu noppee ci yaru ak yare muy Serigne Omar Sylla mi nga xam mooy ànd ak suñu maxtaar eh, di jëm si wàllu boole yi waaye di nuyu itam suñu technicien bi si Moustapha Sarr ci liggéey bu am solo bi di siyaar bu baax a baax baax suñu Abdou Koudous mi nga xam ne tam ginnaaw bi eh, moo koy tasaare ba mbokk jullit yëpp eh, di si jot dëgg yàlla sant yi ak témoignage Cheikh Maxtaar di bàyyi ko fu ne kon ñun mënuñu leen a fay te àddina moom Euh, noonu la daanaka ki lay mooy ki lay soññ dinaa la defal nii nii defal nii kaa ngi nañ ci lii am na lii tey yooyu bari na lool si amaxtaar euh, fu nga xam ne mbokk yi ñu ngi rafetlu liggéey bi di di la ñaanal bu baax a baax ci façon bi nga koy joxee dëgg yàlla mbokk yi ñu ngi koy apprécier sant di yónnee euh, ay cant di wax ne nag ne li leen si mettre rek mooy def li ñu koy def weeru ne benn yoon ndax dañ ko waroon di def nag chaque fukki maanaam quinze maanaam dix jours yu rek waaye ñu tourné benn ñu leen loolu nag xam naa incha allah balaa yàgg loolu dana mën a am si kàttanu borom bi kon Cheikh Makhtar dañ lay jox nga nuyoo bala ñuy dugg si waxtaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare kenn ku nekk ci turam ak uh, santam leen nuyoo beeg siyaar bi ci saaxibul fadila ak cheikh Mouhamadul Muntaqa xafidahu llahu wa raa wa waffaqahu wa tawalla di siyaare njabootu Sëriñ Tuubaa gépp waaye di siyaare it waa daara di la jox siyaare bi sëriñ Mbàkke nga joxal ma ko gaa yu baax yooyu nga xam ne ñi nga yónnee seeni cant ak seeni ñaan ak seeni xalaat kenn ku nekk ñu ngi koy nuyu nag di ko ziyaare te di dégg bu baaxit càkku téef yi ngeen bëgg yàlla nañ ko suñu borom manale bañ mën koo defee ni ngeen ko bëggee delluwaat di nuyu alaaji sëriñ Seck mi nga xam ne mooy njiital kër gi di ci teg sëriñ Dame Touré sëriñ Fallou sekk waa C3 6 ñëpp bàyyiwuñ kenn di nuyu suñu technicien bi sëñ Moustapha Sarr di siyaare itam suñ mbokk mi nga xam ne lee ñu àndaat ci kanam muy sëñ Omar Silla maa ngi siyaare ñëpp waaw Cheikh Matar xam naa fi ñuy tàmbale rek xam nga dañuy wax ni euh, jamono ju ne ak lu bees am te itam euh, fekk na lislaam andi ci ay bind andi ci ay joxoñ euh, ku ne xam na ne Sénégal doon nañ dëgmal si ginnaaw dañuy wax ay élection tànn njiitu réew mm-hmm. ñu jàppoon ni mm-hmm. buñ si àggee tension yu métti dana am yàlla dogal ñu àgg si lépp di jàmm waaye yàlla itam indi ñu njiit réew boo xam ni si ni ñu koy mën a waxee dafay mel ni eh, lu bett ñu ñu baree bari la waaye nag bettul suñu borom tabaaraka wa taala ndax wallahu yuti mulkahu man yasha yàlla moom nee na maay seet ku ma neex eh, ma jox ko ak nguur waaye njëkk ñuy àgg si loolu ak yan bind lañ si mën a jànge Cheikh eh, Makhtar ban bind nga mën a jox nit ñi li nga xam ne dafa mel ni lislaam alquran joxoñ nañu ko ñu di ko gis toujours muy feeñ maanaam mi ne sijjin ilal qasr ñaare bàyyi ko si kaso rek dem ci pale bi tàmbalee ci Seydina Yusuf alayhi salaam bi nga xam ne moom lañ ci teewlu loolu yan bind nga ñu ci mën a jox euh, yu sew ndax xam naa lu sew a sew la mais lan lañ si mën a jàng jërëjëf euh, sëriñ Mbakke euh, xam naa sax amoon nañ suñ mag mu waxoon ne yoonu pale yoon wu ci gën a gaaw mooy dem kaso Ablaye Wade ma waxoon lu mel noonu nee boo bëggee dem palais rek demal kaso nee na yoon woowu moo gën a gàtt ci nga dugg palais boo ko daari ci yoon domaine politique bi nag dana xaw a gudd loolu ñu ngi ko ci saluer bu baax ndax wax ju am solo la dañu wax ne borom xam dañ ne kaso du gàccee kaso bonut ndax ayuha siddiq yuusuf ayuha siddiq ku ñu tëj nga ne ko ey yow kiy dëggal <laughs> ci ngay dégg ne kon kaso du bonukaay mi ngi woon ci biir kaso mi ngi ci biir kaso bi ñu ne ko yow dëggalaa kon bi ba noppi tëj ko mos ngaa dégg loolu sëñ Ba aftina fii sabhi baqaratin soxlaat itam intellectuel ba ca kaso nga dem di fa jëli leçon boo xam da nga ko ne da ngaa wër dëkk bépp réew mépp gisoo ko ko man kon ci ngay déggee yaar des na tëj ku baax des na tëj borom ko waaye kon day mel maam tooñ la tëj la mooy war a nga génn dem foofu maam tooñ la tëj la suñ borom daa dogal képp ku mas a yore nguur ci àdduna nguur googu la ko laltaay naqar yontu yàlla Yuusuf fi mu jaare lu yaatu la tey bu ñu jëloon sorat bi saar bi dañ koy daal di jël muy benn photocopie bu gaaw dëkk nitub àll la ab badawi la dul woon ku dëkk Dakar ci misaal doon jànge université ci àll ba la jóg maam nekkul maam nitu taax daal seen dëkk ay till dafa nekk ak i bënn ci ngay dégg ne ñoom kon muj tama am badawi lañ <laughs> soo déggee till ga ak bënn ga sori na lool capital waaw wala déet kon da ngay dégg ne ndeke nit mën naa jóge ci bitti ñëw gouverner ci biir benn tombaloo danger nit mën na caa jaar ndax bakkanam lañ bëggoon a jël durant ci film bi ba sànni ko ci bën nag porté ko plainte ak tëj ko sax kon daa mel ne dañ ko bëggoon a rey suñ borom gàntal mu nekkaat ci biir kasa ñu bëggoon ko ta atte muy ab crime ab ab ab mujrim ab kàccoor kon li nga mën a dégg mooy ñëpp buñ buñ manqué woon jëm te fekk yow nga ànd ak yàlla ci laa jëm waaw moo tax ku jógee ca àll ba ñu sànni ko ca bënd ga bënd ga mënoon a màbb ci kawam ñu mënoon ko faa bàyyi ba ba muy faatu mu ñëw kër buur ko si néew ñu kareel ko fa problème boo xam ne bidan seni na la huit ans yi jëm kaw yóbbu ko ca kaso ba tëj ko fa kooku mbooleem li ñuy tudde ak maanaam ak éliminer taxawoon nañ ci éliminer ko ci tout le côté maanaam yàqal ko carrière adduna am mu mu jeexal dee wala mu jeexal ñu tëj ko ba faaw. nga xam kon moom imaan rek moo ko sauvé. imaan ko sauvé gëm yàlla la mu waxoon leer na bàyyi naa diine yoo xam ne dañoo wérul dugg ci diine jóge saa yu nit ki dëggëree ci suñ borom luñ ko mën a fexeel loola pexe ma suñ borom da koy gàntal mais dafa mel ni walakin akthara naas googu moom maam daa mel ni loolu lay day bees ba léegi rek day bees day bees day bees ci lu wér suñu mbàkke léegi nag kon li liñ ciy jànge mooy nituk àll ñëw ca taax ya bi mu daataan ñëw ca taax ya luy rey nit lu ne ñu jëfandikoo ko ci moom ba yàgg ñu jëfandikoo ko ci loo xam ne buñ ko fa tëjee foofu mën nañu ko faa fàtte ba faaw ndax bul fàtte ne kat yàllaa ko bëgg a génnee ñu am problème di laajte ba excité kaso ba waaye ay dossier am génnutoon dañ koo soxla ca pale ba ñu ne gis nañ benn waaye boo xam ne bu ñu ko laajee dana mën a tontu looloo ko fa génnee waaye dossier bi légalul woon pour ñu àtte ko yooyu yëpp ay conséquences lay nekk ci biir xista bi léegi nag li mu wax ne kuy nguuru ku ne wala ku suñu borom ku ne dana la natt yonent bi nañ ko mandat d'arrêt ku ko gis na de waaw kay ba muy génn guddi dem ànd ak Seydina Aboubacar Sadiq Moussa xaifan yatraqab hmm. ko kay mooy koo ne amul pièce maanaam mooy koy def xaifan yatraqab fa xaraja <laughs> minal madinati mooy koo xam ne amul benn pièce amul carte d'identité amul dara te it ñemewut jaar gaaraas jël oto hmm. day topp yoon yee di daw hmm. kooku ndax ndax am na sécurité pourtant ba muy dellusiwaat moom itam ci la doole ji jëlee nguur gi ca firaw na ci développe képp ku yore nguur mënoo ko yor ci loxoy neen mun ta seet nga door koo mais kon day man sama xalaat day mel ay bind la bind yooyu ngay daj dafa ay bind yooyu jàng la oh, góor sëñ pour mën a xam lan mooy coono ak lan mooy injustice dañ ne dañ ko sàmmaloo ay xar xar ni naqaree jubbantee boo ko nee ar du ko dégg dangay daw ba tolloog nopp ba pes mu door a wàññi borom xam-xam yi nee nañ bu jógee ca xar ya bu waxee ba nit ñi ne ko waaw day sant yàlla ndax moom xar yi daawuñu ko wax waaw amuñu nopp <laughs> waaw xel waaw dañ lay tàmbalee la ci lu metti nga jël ci leçon yu metti boo liggéey si biir lu ñëwaat gën a yomb moo tax ñu sàmm loo ko ay xar xar naqaree jubbanti boo liggéey si biir bu waxee ak i nit ñi tey gën a neexee jubbanti xar suba su boobaa nag kaso jóge ca dem pale ñëpp woon ci yonent yëpp la wala ñu bari ko ñi ci demul jóge kaso dem pare dañ leen a rey mooy yaxya yontu yàlla yaxya wala kooku xanaa kooku bu jëloon ci kooku dañ ko yóbbu moom fa ñuy atte atte ba rey atte ko kon ak ngóor mënta ñëw ci lu dul coono coono boobu nag dañoo bëgg mu jàngal boroom ngóor ga balaa jël ngóor ga yonent bi saa jóge guddi këram ànd ak seydina abubakar saddiq fanaan ci xut moo xam ne jaana nga fa ba mat ba mat abubakar ñu fajaroo waat fa jëm si Madina ñu jàpp ñu dàq leen ba nga xam ne Suraaxata ibnu Malik al Mudliji bu amoon la ko gën a tey jii yonent bi saa salaam rey na ko bu yàgg loolu lépp dañ ciy dégg ne bu yàlla nee déet waaw du am mukk waaye nag bu ne waaw déet du am mukk moo tax nag nit dana dox toujours bëgg déetam fekk day tombeek waawee yàlla wala mu bëgg waawam fekk mu tombeek déeti yàlla su boobaa nag mboolem dañ ne suñu borom bu soxlaa lépp luy mustaxil dafay wëlbati ko jóge ci mustaxil ñëw ci mawjud bu soxlawul lépp loo xam ne mustaxil ku ko fa bëgg a jëlee da nga xam ne doo buur yàlla subhaanahu wa taala <laughs> waaye nag bu ko defee itam lépp nag dafay delluwaat ci ci ci maanaam ci xeeroñu suñu borom li suñ tubaa naan maanaam maanaam yàlla jëfam yaalatuhu daqiqatun laysa waaw kayfa tadabbara waaw yoriju fi layli nahaarahu kama yoriju fi layli awqama suñu borom jëfam dafa dafa dafa dafa xereñ mel na ni kon ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi nattu bu mel noonu jaar na dund jafe-jafe dugg ci kaso génn yilif sénégalais yi ci loo xam ne boo koy jàng ci ñu bari li ñuy wax dañ naan ndaw la mais ndaw Cheikh Massar est-ce que mën jël ay responsabilité yóbbu ko bu sori ndax nit ñi dañuy gaaw ci mm-hmm. diw ndaw la mm-hmm. ma jox la si benn misaal bala nga see ñëw ku si mel ni ki Omar Ibn Abdoul Aziz moo tax wax ne bi ñu ko falee délégation dañoo ñëw di ko ndokkeel am bu ñëw jógee Hijaz am ku ñëw war a wax fekk xale la Omar Aziz ni ko delloo si ginnaaw mm-hmm. may mag ñu ñu wax mm-hmm. mu ne ko almaru di asar yi ne doomu ko a mhm. a mën a waxee mhm. kooku nekkatul ku ñuy mhm. ko nag bu fekkoon ne mag rek tax a falu kon fii doo falu la mag na nga koy topp ba mu jeex bi nag ba wax ja yàggee lana kon bisimilah waxal te boo noppee nga waar ma te nga gàttal ko kon ndeke gone malgré li ñuy wax ni ñeent fukki at ak ñeent la am est-ce que loolu ab sart la si mu mar a mën a doxal réew wala mu ñàkk jërëjëf sëñ Mbacke xam nga dañ dellusiwaat tuuti ci yéen Seydina Yuusuf yaa bushra ya hada xulaam xulaam naa xulaam xale la te diiran bi mu jógee xulaam dem ca pale ba lépp huit ans la te xulaam sax daa mel ni dañuy wax ni mooy diggante fukki at ak benn wala juróom-ñeent dama laa bëgg a tënkal bu laa ne ah. gone gu la fukki at ak benn fukki at ak ñeent gën jaa bari hmm. mu tegaat ci yeneen juróom-ñetti at ij'alni ala xasaa'ini al ardi inni xafidun alim ñu jox ko lu toll ne budget kon boo xoolee yonent yàlla Yuusuf bi muy am bi muy yore ministre nga xam ne li ko def kilifa mooy xafisun amin boobu maanaam man maanaam jub ba pare mën a wattu luñ ko dénk danañ ñëw sax ci xafisun alim sax moo ko def kilifa waaw waaye lu mën a xew kon Yuusufa ginnaaw xulaam la woon bi ko fi tëjee juróom-ñetti at la kon moom day mel ne bi ñu koy jox nguur gi amul sax far ñaar fukki at ak juróom benn ngoog ci Yuusuf wala xad aatana ibrahima rushdahu min qabl min qabl mooy qabla sinnil buluug avant muy majeur sax moom far lépp ñëw na si la si la amee woon Rachid xel mu mat sëkk ah, mën a doxal lépp waaw yonent bi saa salaam bi Madina ci 40 ans la woote ñaata at ñett 43 ans la moom moom moom moom moom suñu président yëpp mage na ko un an pour ñu mu xaarana bu gaaw rek 43 ans la arrivé Madina wala 42 ans ndax kooko daan lawee su boobaa kon kon demeen diw gone la erreur la di parce que li am solo li nga wax noonu ne am xel la ñuy natt rusul maanaam seen rusul 17 ans la 18 ans mbaa yi mbaa ay ay alaamaat maanaam ay mandarga su ko xasee ba am nag mat na imaam mat na attekat mat na lu ne. Abdullah Mas'ud da doon atte jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ñu ne ko dañ laa mu ne ndax lan ñu ne ko da ngay gone mu ne man ma yaakaaroon ne lu bon ko naa fi ay at. waaw waaw <laughs> kay parce que 25 ans la tàmbalee atte jamono yonent bi bi mu amee 40 ñu bëgg koo folli. mu leen li li man lu bon bon dool naa ci quinze ans de plus kon nit mën naa am lu mu bëgg mais yàlla dafa am lu mu bëgg liñ soxla ci njiit du ay at am na benn borom xam-xam bu ko waxoon ne bari ay at bari ay fan la bari ay bis la waaye du bari xam-xam de du bari alal de am na ñoo xam ne am nañ quatre-vingt-dix ans tey jiite mënuñoo génne vingt-cinq bi léegi nag kon nag ginnaaw bari xam-xam du ko tax du tënkul ci bari at bari alal taxul tënkul ci at rëyum xel itam tënkul ci bari at su ba kon ar riasa muy ak njiit desu ko sart sart ci ay at ndax gisuñu benn yoon dalil waa ba bu tegte la noonu xool yonent yàlla Moussa ba muy dem Madiyana amaguloon soxna célibataire la liggéey na Madiyana dix ans am soxna te ba mu fay jógee moom maanaam ab célibataire la woon boo xam ne da doon nëbbutu ba dem bi mu dellu si waatee àndaale soxnaam àndaale ak nubuwatoom nag la ko jot ci yoon wala ko do jot sëñ Mbàkke te la ko may soxna si itam si ak njub la bàyyi ko maanaam sàmm diineem ak sàmm ak confiance waaw ndax soxna yi constaté nañ ko ba xam ni kii am na muro am na mbañum rus ñu doo ko ñu doo ko présenté seen alqawi al amin alqawi mooy buy liggéey da cay man dara al nag mooy bu nekkee sa njaboot du la tooñ bu bi dénkee sa coffre-fort du ko yàq mooy amin xale yi jigéen dañ ko ne xawi yu la ndax gis nañu yëkkati daj bu diis amin la ndax biñu ànd ak moom abordé wuñu nekkuñ naan noo tudd jox ma sa téléphone déedéet nee na ko musaa daf ñëw jiital dafa jiitu di dem ne ma buñ àggee ca doj yoon wuñu war a jàdd nga sànni aw doj ci sama kanam ma xam ne yoon woowu war a jàdd ngir bañ koo teg ba loolu moo waral al amin bi al qawi na mooy doj moom yëkkati nga xam ne kon loolu moom euh, du maanaam du ay wax maanaam nit moom li koy li koy li koy li koy def kilifa ginnaaw boo xamante ni majeur na mooy ak njub nit moom bu xësee ba jub ku ne eh, mën na fa àgg léegi mu des liñ naan ci famille pauvre la fa la jógee ñëw fële dugg na fii damaa gis ni ina laa xat baansa lakum taaluta malika mm-hmm. nee na yàlla bi muy jël taalut di ko def mu war a jiite mm-hmm. qaalu anna yakunu lahu almulku alayna ahaq bil mulk min wala mu yuuta saatan min al maal mm-hmm. parce que ñoom dañoo wax ne pauvre la parce que famille bi mu bokkal mais taalut dafa amuloon alal waaye suñu war a xaar inna allaha astafa aleykum wa saadahu bastatan fil ilmi wal jism ñaari élément nga xam léegi kon léegi ndeketee jóge gi si àll bi ak ndawe gi ay at dafa mel ni existé wul fil ilmi wal jismi nga xam ne am na kàttanu yaram waaye tam yàlla doof na ko xam-xam bu mën a jiite kon foofu lan lañ si mën a dégg ci ñi nga xam dañ naan dafa pauvre la woon mais loolu dafa mel ni du du du ab sàrt ci mbir jërëjëf si Mbàkke président Amérique euh, George Bush papam dawal ko course la woon fas la daan dawal fas fasu course la daan dawal am na ci koo xam ne papaam gardien la woon te ku ne xam ne dawal ko course ak ak gardien seen seen seen sol du juste maanaam seen amuñu alal ju bari yonte yàlla Yuusuf ci àll ba la jóge woon wax naa la ko li li tax nga xam ne mujtama badawi la mooy till ga ak bënd ga rek moo lay xam ne rek kii moom bu ëllëgee bu demee ba Égypte ba Misra di fa gouverner ba waaj ba bokki baa bokki baayam yi ñëw di jëgg si kon pauvreté mënut a passé foofu. wajaa abikum min al moo tax su boobaa kon ak pauvreté mi ngi yem ci yow ñi nga bokkal sax ndekete amuñu añub suba ba ñi ngi jëgg si mm-hmm. te yow yaay chef de gouvernement mm-hmm. kon alxuraan saxal na ko yaakaar mm-hmm. na sallallahu alayhi wa sallam keroog ba muy jógee ma ma makk ñëw Madina indaale wuñu woon dara loo xam ne ab argent de poche la wala capital la koy dëggal mooy. weeru banu najjaar googe xale ya fa dëkkoon te aloon ko weeru tàndarma ga dañ bëggoon ko def muy jumaa ja dañ ko al mu jënd ko dafa def prêt de banque ci Aboubacar loolu mën a jënd weeru tàndarma gi muy terrain boobu ñu def ko tey muy masjidul munawwar bañ demee ba ca beneen bu ñuy wax euh, banu nadair ca lañ ca amee woon ca fay uba maanaam ca ca ca ca lam ca amee la door a remboursé Aboubacar kon nekkul ne kuy nekk ci kanamu nit ñi dangay ngay am alal léegi yëpp ay dalil la yoo xam ne nañ ko bëgg mu nekk dalil xaata bi ki des suñ réew mii nañ def masala iftiradiya ko fi mas a nguur koo xam ne bàyyam milliardaire la woon billaahi aleykum nañ ma ko wax ci président yi fi sosoo ko Senghor fu mu jóge woon Joal Fadiouth lu mu fa bàyyi woon amul woon xaalis Abdoulaye Wade fu mu jóge woon Kébémer mat na waaw Abdou Diouf fu mu nekkoon njaambur njaambur lu mu am lu nekk ci biir ci biir gouvernement bi la ko liggéey ba dañ ko ko pouvoir kii fi jógee nii tey kër gam doon luyee mi ngi nii ñëpp ko xam mën nañu dem ba ne la fii la doon luyee ak ak yeneen yi sa xew kon ndekete yëf yi fil ilmi mooy ñaari ana unsur yi nga xam ne bu amee lépp dina baax lan mooy nekk kaadar ba noppi nag bañ a nekk kaadaru wax te nekk kaadaru jëf. sëñ bi te dafa yéeme xam nga alxuraan maanaam fi la ilmi ni mu ko maarifaale. Ah. maanaam fi la ilmi ci xam-xam ba. foofu laa jëm su boobaa cadre al ilmu ba àndeeg liif day nekk al ilmu buñ jëfandikoo maanaam xam-xam bu ànd ak jëfee nekkul nekkul rek nay. nay borom waa fi ilmin rek déedéet nay xam-xam boo xam ne dafa am soxna su ñëwoon. fekk ab faqih <laughs> ah, dafa am borom xam-xam bu ñëw toog di àtte. as soxna ñëw ne salaamaaleykum ñu ne maaleykum salaam mu ne ana ko fii àtte ñu ne ko mu ne maa ngi nii soxna si ne ko dama lay laaj lan moo war ab jullit mu ne ko gëm yàlla di jàpp di julli di di di wax a wax ba àggal soxna si ne ko yow yow boroom xam-xam bi mu ne ko waaw mu ne ko loo wax ci lekk lu leew ak lu xaraam mu ne ko nit daa war a lekk lu leew daa war a wattandiku lu xaraam su dul loolu des na ko rëbb soxna si ne tekk ne ko gisal la wax ci tëdd guddi mu ne nit ki daa war a fanaane ne si ne ko tënkal naa la leen amal lu leew loo mën a lekk baax na mais le problème mooy na nga am lu leew hmm, waaw amal lu leew lu leew ne da ngaa fàtte maarifatu shay'i ak ak nafsu shay'i maanaam jawharu jawharu shay'i ak nafsu shay'i du benn yow li nga wax ne mën a amal ko ay texte rek nga may tegal hmm. léegi nag jawhar bi mooy li ngay wax nii li koy tënk ci dëgg dëgg nga xam ne mooy bu doon uh, ab kii mooy salba mooy li ngay wax ci xalaal ak xaraam amal xalaal wartandikul xaraam soo lekkee xalaal noo ne la way baax <laughs> ne ko jawhar bi mooy loolu léegi nag lenn dafa am jawhar jawharul ilmi mooy al amal mooy jëfe ki su ko defee nag fil ilmi wal amal jawharan li xayra yi daareen yee léegi na su boobaa nag al ilmu boobu mooy nag nay boroom xam-xam boo xam ne du jël ay texte dong di ko mokkal mais boo gisee jëmm jën na ca texte ya di feeñ mooy fil ilm wal jism mooy lan suñu mbàkki tey nit ki bu fekkente ni dafay bëgg gouverner ci Sénégal waxtu wu ne maanaam trois mois yi ne war naa dem hôpitalu France fajo ji fa duñ koy doy te nekk président du tawat kon duñ ko fa laale feebar su boobaa nag kon gis bi mooy. nay boo xam ñëpp dañ koy soxla mu bari lu muy feebar. wóor ko ko nag ak ak noppalu. su boobaa nag léegi fii la xel mi gis mi nag képp lañ soxla ci président ci lan buñ koy a tabb suñ ko tabbee ba noppi nag la Yuusufa waxoon rek inni xafidun alim ñaar yooyu lañ soxla ci loolu day daal di nuru li li nga wax ci ci wér-gu-yaram day nuru lu mel ni kii tey Ibrahima Erdogan maa ngi gis benn texte mu wax ni diir bi mu faloo mosut a génn bureau am bàyyi fa këyit bu ñu war a signé maam signature boo xam ne moom moo ko war a signé rek ñu liggéey maam du ko tardé damay gis ni nomination yu bari dangay gis ni dañ koy fal mu nekk si bureau benn këyit boo xam signature rek maam nit ki mbiram jag mu toog fa di xaar suba ba ngoon wala sax pendant une semaine wala ay wala deux mois te loolu nag dafa mel ni kon euh, liggéey bi dëgg dëgg dëgg bu fekkee wér-gu-yaram am na waroo tàngam lu tam soxla yi. xam nga inna xayra man istaajarta al ah hmm. mooy ñu jël la yow post boo moomutoon wala ñu nangoo ko ci nit jox la ko. Hmm. li mooy istijaar hmm. al ijaar mooy koo xam nga yow ñu la fii yaa fi ne liggéeyal di am lii par weer ñu ne ko kuñ koy def loo nag xayra ga mooy alqawiyul amin alqawiyul amin mooy koo xam ne du na saa bi day metti loolu damaa yore damaa euh, euh, certificat de médical mm-hmm. chaque jour bu xëyee day xëcc nga xam ne yooyu bu matee daal moom mooy mooy moom la ñuy xool nag ci kii mooy njiitul réew mi wala kii mooy njiital société bi wala kii mooy njiital dëkk bi mm-hmm. moom daal na wér ah, léegi nag ki nga xam ne moom yàlla sédd na ko ci Sénégal yi mu président Diomaye eh, di ko ñaanal Bachir di ko ñaanal bu baax suñu boppam tabaaraka taala yan bii moo yofal ko mm-hmm. waaye tam wan ko yoon mu war a jaar ba Sénégalais yëpp gis seen bopp tey loolu gis gi bopp man maa ngi ko teg maa ngi ko teg si jël mbir mépp rek teg ko si sa siraatul mustaqim képp koo xam ne gis nga ni yaa ngi sonn euh, yàlla dogal sa coono boobu bañ a bañ bañ a réer koo xamante ne gis nga ni mbir mi moom pour mu jag si nooflaay la wala teg ay pexe kooku tam sa mbir mën euh, a bañ a bañ a bañ a bañ a bañ a feeñ léegi nag jëmm yooyu tey boo ko doon dénk xam naa si jot boo ko doon dénk lan nga koy dénk pour lii nga xam ne Sénégalais yi wóor nañ ko ba teg ko si loxoom ak li Sénégalais yi xaar si moom lan nga koy dënk ngir que mu mën a am ndam ba dara bañ koo gàllankoor. dama ko bëggoon a njëkkat séddale terrain Sénégal mooy lan ba bañ fuñ ne noonu bala ñu wax lu ñu am noonu dañoo wax dañoo wax noonu fun fun ne noonu ñun fan lan ne na xam ne moom ci ab population la convaincre moom la wax bañ d'accord ak moom population góor la ak jigéen kenn ku ci nekk xaaj nga ci peuple bi su boobaa nag bu peuple bi jàllee ci góor ak jigéen ñaara fa am ku yilife ak ku ñu yilifa fa des patron bi ak ki muy liggéeyloo ñooñ ñooy waa réew mi ba mu ku fi ku fi dul ab liggéeykat rek da da ngay liggéeylu loolu mat naa mat naa bàyyi xel su boobaa nag benn dëkk ak ñaari dëkk ñoo dajaloo di dajaloo di dajaloo ba dajaloo tudd Sénégal dëkk boobu ak ñaari dëkk yooyu ak ñetti dëkk yéen ba sore ak bii di bi Dakar ñoo bokk att ci kaw suufu Sénégal ñafee lañ soxla woo lañ ñi fii soxla loolu mooy terrain bi na ngay jëkk traité ba mu xam ne ñun dañoo dajale woon ci góor ak jigéen kilifa ak kamu yilif ba noppi itam dëkk bu nañu dajale ko ba mujj di ay dëkk yu bari tudd am réew su boobaa nag liñ fexee ba am république suñ sens la parce que buñ ko amuloon tey noonu fu ñuy bokk Burkina Faso nga nële Mali nga nële fenn fa ne ñu ne nag léegi dig diggal bi lee aw maanaam ak mbooy la moom jàng na mm. maanaam nekk na ci àll bi ak mbooy sañ bi kum neex nga nga nga nga nga yeew fa saw fas kum kum neex nga gub fa kum neex nga yeew fa sam xar kon Sénégal du mbooy ab dëkk la comme dëkk yi ci des su boobaa nag lu gàtt la góor googu ma waxoon ak jigéen jooju ma waxoon la góor di soxla woo bi ñu ko falagul mm. bi bi ñu ko soxla woon moom la góor di continuer di soxla jigéen jee ma waxoon bañ ko falagut buñ ko falee sax la ëpp yaakaar ci defe na soxlaan ci lay gën a fajoo dëkk boobu yi ñu xam ne dafa dajale ay moroomi dëkkam bay bay ay dëkk yu bari ba tudd am réew bu mu xeeb ba ca peggu frontière ba di ko bëgg a ñàkk a tëkkaleeg bi nga xam ne moo nekk ci capital bi mbaa moo nekk ci wetu capital bi su boobaa nag ñooñu daan nañu indi seen i aajo ñëpp ko wateel wala ñu ëpp ko wateel wala fu ko waay mën a wateelee nekku na danga damay dëkk Dakar door ko wateel mbaa ma dëkk Thiès door ko wateel waaye dama am ci moom baatu bi yaakaar moo tax wate ixtiyaar la tànn naa la la wax tudd tànn naa la mooy yaa ma doy ma jox la sama këyit jox la sama sama sama xaalis jox la sama suuf si nga xam ne maa yow ñoo ko bokk ëppale woo ma ma def la ci ngay njiit nga tege ci sama kaw sa oto gën sama oto sa wér-gu-yaram ñu gën koo sàmm ci sama gos dëkk bi fi ngay dëkk man sax su ma fa jegee ñu ne eh, taxawal xool pouvoir yi dafa ku xam masuuliya bi dëgg-dëgg da xam lan nga yem ndax day na sëkk rek ñu ne la dëkk ba mu dëkkoon buñ ko dugaloon ci biir Dakar defe naa ne dana xaw mel ne eh, maanaam juróomi dërëm yoo dugal ci paanu ndox ci tuutaay kon nag yaakaar a ko fi indi waaye bu fekkonte ne dañuy xool ay ay classe ak ay tabaxaat ak yooyu. mën a génn. kon du kon du dugg. Ah, macha allah su boobaa nag masuuliya bu mel noonu sëñ bi. li war ci gouvernement mooy mu gérer ko tëye ko ku koy gérer la ku ne mu wax la ne la lii taklif la du taswif maanaam ay responsabilité la mais lu teraanga jun ñu sédd lu ñuy nguuroo déedéet loolu moom mooy moo mat a dugal ci bopp ku moo ko mu koy dox bala la sedd bi upp ba ngay liw moom lu war nga ko xam ñu yele ci taklif la du tashrif ay charge la yu ñu la charge yoo xam ne yaa ko war a def. nga xam ne képp ku ñu jox ndomb ak tànk loolu war na ko mën sa bët bu war na sa mën a tege. nga xam ne lii ay charge yu ñu la teg la. bu ko borom matalee nag te nam ko war a defee dana ko andil tashrif. léppay ñëw waaw parce que dana mujj ñëpp di ko sant. Mm-hmm. bis bu doon bàyyi sax dañ naan ko jërëjëfati. Mm-hmm. wala lu mu mën a xew rek moom aw turam dafay des ba faaw. moo tax gis nga américain ñoom bëgguñu di nekk di lekk xaalisu réew mi déedéet dañoo bëgg seeni seeni seeni tur des ca liste bi nga xam ne ñoo mas a gouverner Amérique. même ñoom sax dégg naa bokk na seeni charte même président bu génnee fenn ñu jox ko alal loolu amul droit moom. parce que tey bu ko nuyu woon président du xam loolu. te loolu lislaam jàngale na ko maa baalu qawmin yonent bi ba tey lan moo tax aw nit ñu yabal leen ñuy jeexaat ñu jox leen alal. Ah. may leen ko ñu defee ni ñoo ko moom te buñ leen yónniwuloon kenn du leen xam. léegi nag kon foofu ngay gisee ne taklif la du tashrif tashrif waaye nag takkale bi boo ci góorgóorloo def ko na ko war a defee. yàlla moo lay teral yàlla lay teral su boobaa nag gouvernement dañ koo séddalee ci ne ñaar ak séq kenn ku nekk la nga yor moomal ko sa bopp am nga ca àtte soppaxndikoo ca nu la neex li nga moomal sa bopp. li nga moomal sa bopp soo ca soppaxndikoo ni la neex séq ko ni nga ko war a séqal ni mu war a demee su boobaa ñu tuddee la nit koo xam ne boroomi valeur wala nga beddi ko fooyu ñu tudd la mustabid mm-hmm. ñu tudd la nit koo xam ne. xam teraanga da laa jomb daal. su boobaa nag kon li am ba des ci ak mooy ki ko yor borom xam-xam benn dafa économique niñ koy jàngalee mooy kenn ku ne def la ko war rek mm-hmm. mécanicien bi na def mécanique te am lu mu ko defee nappkat bi nañ ko jox gaal baykat bi na am ay ay matériel euh, kii agricole noonu la ko séddalee nee na nag kafa at yooyu maanaam ñu nga xam ne kenn ku ne man nga. bu ñu bëggee économie bi dox dañuy xëy xëy rek seet lépp fekk lépp di dox. waaw parce que kenn ku ne yaa ngi doxal li nga war a dox. waaw ba ci àttekat bi sax mu dem ci àtteem. dox boo xam ne kooku day tibb di jox kenn ku deful dara muy lekk. moo tax indi xafiisu xeexu mooy danaa ko wattu ba budget bi danaa xam ñaata laa déparé danaa xam ministère bu ne du ma ko jox bu ëllëgatee kenn ku nekk danaa la laaj sa ministère gi nga yoroon ñaata nga fa dépensé ak lan nga dese mooy xafiisu. mooy xefu bi kon wat naa leen ne kenn. du ci soxla woo ku lay contrôler sax. pasaree sa yëf rek. Mm-hmm. maag yow. macha allah su boobaa nag. kafaa abi nag day daal di dox. réew mi daal di mën a am jàmm. macha allah Cheikh Amar loolu nga indi am na solo lool kon loolu mooy moom la ñuy euh, dénk rek nga xam moom la yàlla teg si kanamu Sénégal yëpp. président Bassirou Diomaye Faye di ko ñaanal borom bi tabaaraka taala euh, ni ñu ko ñaanoon ci ak njëlbeen rek mm-hmm. euh, lépp tegu ci aw yoon. Mm-hmm. suñu borom tabaaraka taala kàttanal ko ba yéene yi nga xam ne am na ko tam mu mot li ko def ko si anam gëm gën a mm-hmm. rafete waaye li ñu koy dénkit rek mooy la lañu waxoon rek li xale ba dénkoon eh, Omar ibn Abdul mm-hmm. bi mu ne ko waxal ta gàtt waar ma ta gàttal ko ah. eh, daf koo xamal rek ne ko ñi la jiitu de mm-hmm. li leen li leen dal li leen ko teg ah. mooy nit ñi dañoo bari lu leen di tagg ah. di leen tagg leen tagg yàlla tam lewet ci seen ayib ba muruwul seen mbalaanum sutura ñu topp tàgg nit ñi nag ak lawetaw yàlla gi ba trompé wu mm-hmm. léegi nag yow li ma lay dénk nag mooy mm-hmm. bul trompé wu ci tàggu nit ñi mm-hmm. waaye lawet gi yàlla lawet seen mbir itam ba ba muurwul sa sutura buum la buum la buum buum la nax am solo Omar Ibrahima si ni ko jërëjëf yal na la yàlla barke yow mënu woon a ñàkk si jataay bi kon loolu lañuy ñuy dénk itam suñu njiit réew moom di ko dénk itam képp koo xam ne borom bi dénk na la ay responsabilité nga jéem see taxaw def ko nam gën a yéwéne te xam ne itam boo ko boo ko fii itam ala kulli xaalin leer tey suñu borom inna rabbaka la bil mirsad ni ngay taxawee ci benn benn studio wala benn barab ñu def ay caméra de surveillance nga di ko ragal di ko wattandiku mm-hmm. yooyu appareil ma bu courant coupé mën naa bañ jël mën nañoo évacuer mémoire bi waaye nag suñu borom moom inna rabbaka la bil mirsad moom toujours mm-hmm. mi ngi tege si ñun te bëtam du teg ko si ñun benn yoon yàlla na borom bi defal ñu ak dégg ak topp mm-hmm. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu